alhamdulillah mbokk mi nga xam ne dafa laaj mu ne euh, tariqa yi nga xamante ne moo am nee na te ñu xam ne xëy na am na ay masala yu bëri ay côté yu bëri yoo xamante ne euh, am na lu ca wuute ak sunna lu bëree bari mu ne ñi nga xamante ne ñoo ko tër ñoo ko sos nee na lu tax ñu sos ko lan moo tax ñu sos ko te fekk am na yoo xamante ne moo ca juuyoo ak sharia yu ca nekk ngir tontu loolu dañ koy wax ni yi tax ñu sos ko am na yoo xamante ni xamees na ko waaye am na yoo xamante ni xëy na dañuy delloo xam-xam ba ci borom bi tabaraka wa taala bokk na ci yi nga xamante ne moo tax ñu sos tariqa yooyu tër ko mooy bëgg aw yiw bëgg aw yiw bëgg jaamu yàlla subhanahu wa taala jaamu yàlla gu bari waaye nag bari na koo xamante ne bëgg na aw yiw waaye nag yoon wam jaar ngir wut aw yiw du woowa loolu moo indi lii lii wane ni bëgg aw yiw moo tax ñu baree bari sos yoon yooyu yi nga xam ne moom lañu fent di ko jaamoo borom bi tabaraka wa taala mooy la doxoon diggante Abdullah ibn Mas'ud ak ñooñee nga xamante ne ñoo doon def méthode yuñ doon jaamoo yàlla ci jamonoy saaba yi di ko def ci kufa da xamante bu don tay la ñu ne ñoy wa tariqa moy lan ñoñu dañoo dem ca nek ja nek fa ci benn ruq def seenu ngeul benn way len nan len sabbihu kada sabbal len yalla nangam yoon ñuy sabbal mu nan nanggamion, kabbar len nangam yoon ñuy kabbar and di ko def mu nan len halilu manam wax leen la ilaha illallah nangam ñu ànd di ko def ci façon bo xamantene minu ñu ko ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci ña gis lolé daa di dem ci borom xam-xam bu ñu naan Abdullah ibn Mas'ud nga xamne ci saaba yi la bok yero ci kepar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko ibnu Mas'ud ñëw tim leen ginaaw ba mu solé jalla bi ba xamé wuñ ko ndax xamna na ne buñ ko xamé dañuy bàyyi bala ñëw bi ñewé ba tok ci seen wet bim deme ba gis ni ñi doxale xamne wàcc na aw yoon motax mbokk yi toujours ñu leen di wax ne bida du caagante ne ngay wax la ilaha illallah rek nekkoo ci bida wala ngay wax astaghfirullah nekkoo ci bida waye façon biñ koy defé faawu mu nek façon bo xamne sharia mo la ci jox ndigal ibnu mas'ud bim leen gisee ci niñ koy defé wuté sharia mu daa di bi mu daa di xàmmiku bañ xamé ko mu ne leen ana abu abdurrahman ba ñëpp xam ko mu ne leen ñaari mbir dee ngi nii benn yéen a ëpp saaba yi yonent bi xam-xam wala sos ngeen bidaa ci diine teg ko ci ak tooñ saaba yi moom kenn mënu leen a ëpp xam-xam ndax ñoo jël xam-xam ba tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot li ko xeetu yi kon ñu gis ne kon noonee ñu ko defee te teguwul ci ndigal loolu bidaa lay doon waaye loolu taxuñoo jóg tey waaye benn waay moo ni tonn ca ñoom ne ko ah ndax laa nuridu illa al xayr ko ñun de tudd yàlla yi ñuy tudd yàlla ak nii ñu koy defee façon bii ñu koy defee yépp liñ ci jublu mooy aw yiw rek lañ bëgg Abdullah ibn Mas'ud daal di koy wax waxam ju siiw ja ne ko kam min muridin lil xayri lam yusib ne ko bari na koo xamante ne day bëgg na aw yiw waaye dogul yoon wa waaye dogul yoon wa maanaam teguwul ca yoon wa ñuy wute aw yiw bi maanaa nam koy wute du noona tariqa yii nag nga gis ak ya jiitu yi nga xam ak yi nga xamul yépp bokk na ci sababu la tax ñu sos ko mooy wut aw yiw wut aw yiw loolu dafa xaw a am lu mu nuróol ca jamono bu njëkk mooy ba ñuy euh, nettali xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk naan diw nee na diw nee na ko diw nee na diw nee na ko saaba nee na ko yonent nee na nangam am ci nit ñi ñoo xamante ne dañ daan fent ay xadis yoo xam ne dañ naan yonent bee ko wax mu jëm ci ay ngëneel am na ci koo xamante ne ngëneeli saari alxuraan yi benn par benn la fent ab xadis ne diw nee na diw nee na ko nga xam ne loolu lépp da koo fent ci xelum boppam kenn daal di koy askanale yonent bi ne yonent bi nee na suuratul baqara boo ko jàngee am nga ngëneel sàngam tudd ci ngëneel yu rëy fekke suratu ali imran boo ko jàngee noonu wàcc ba minal jinnati wan naas waa jooji biñ ko ne bi ñu demee gëstu ba xam ne xadis boobu jëliwu ko fenn duura moom da cee duural yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa lu mu wax moom lan la waxoon dani damaa gis ne nit ñi ñi ngi daw jëm ci boroom xam-xam sàngam ñi ngi daw jëm ci euh, mbir sàngam ñi ngi daw jëm ci caaxaan sàngam ma bëgg leen a wëlbati indi leen ci alquran ngir ñuy jàng alquran bàyyi caaxaan yi ñu nekkee moo tax ma sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadis boobu ngir nit ñi ñëw jubluwaat ci alquran buñ gisee ngëneel yu rëy yoon nga gis ne waa ji li nga xamante ne mooy bëgg-bëggam wala mooy yéeneem yéene ju rafet la waaye nag dafa wàcc yoon mooy lan mooy dafa duural yonent bi Salallahu alayhi wa sallam moo tax ñenn ci ñoom sax boo leen daan wax ne leen yonent bi nee na boo ma waxalee lu ma waxul na nga daaj sab sees ca aljat ca fële ca sawara luñ daan wax dañ naan ana ma kadabtu alayhi walakin kadabtu lahu danaan la man fenaluma ko waaye dama fen fen woo xam ne moom day baax ci diine ji baax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi du noonu yonent bi boo ko waxalee lu mu waxut même bu dee aw yiw nga ca jublu juum nga kon liñ bëgg a wax mooy kon sos boobu ñu sos tariqa yooyu ngir bëgg aw yiw waroon nañoo xam ne yoon wi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëdd muy diine ji nga xam ne lépp luy yiw dëxañ na ko ci biir jële ko ca borom bi tabaraka wa taala ak lu mën a doon ci côté bu mën a doon jaamu yàlla gum mën a doon jàngale na ko jàngale nañ koy defee waaye mu wax nit ñi la ca ne ci ay ngëneel ak la ne ci ay pas-pas yu ñu war a fas yonent bi bàyyiwu ca dara diina ji mat kon jarul woon ñuy fent ay yoon yoo xamante ne moom la ñuy jël fent ca ay méthodes yu ñuy jaamoo yàlla yu bokkul ak yi nga xam ne moom la yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ko xeet wi dund ko ci kanamu saaba yi ñu toxal ko ba mu yegsi ci ñun tey kon nit ki ni mu waroon a def mooy bu ñëwee jàng alquran ak sunna xam li yonent yàlla ne woon ak i saabaam mu xamal ko ñamu dundal bokk ak ñoom jëfee comme ni ko yonantu daan jëfee ki saabam alayhi bu ko defee ñoom ñëpp ñu ànd texe loolu moo doon yoon wu jub wa kon daal loolu lenn la ci li tax ñu sos tariqa yi mooy bëgg aw yiw waaye nag juum nañ ca loola ndax yiw luy yiw yonant yàlla jàng ne ko jàngale na ko alayhi salaatu wasalaam ci diineem ju mat ji nga xamante ne moom la jëlee ca borom bi tabaraka wa taala wallahu taala aalam